Sénéguindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Téléchargez votre application Orange Money gratuitement sur App Store ou Google Play. Orange Money, gën yomb, gën Orange Money. Terang, ak Punch la fekk baax seetaan c'est un programme ak boisson Punch yi di teral ak di seetal ak Punch rek teraanga fi la fek baax. Royal est disponible en supermarché et chez tous nos distributeurs. Au Royal Burundi. Au Nomo Hôtel Dakar, le chic en toute simplicité. Ombilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Ombilico, the best. Les meilleurs vendeurs avec les meilleurs articles sont sur Shopping.com Un voyage, vacances, business, découverte, on s'occupe de tous les détails pour votre logement. Dalak Jam, l'hospitalité à l'africaine. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Le Pop Shop Vicky Collection, Fabi Shop, Galia, Golden Express, M60, Fatishop Prestige, Muscalaf, Bashik, Ryan 13. Bohemian Store, Adamawa. Saelia, your pan-African brand. By Modo HLM, votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. 77 087 11 11. Thiès habillement di grossiste ci ay tenues africaines Wa diaspora de leen seen nous ñu livrer leen ko par DHL numéro 77 774 09 71. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond-point EMG pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.heritagecouture.net Ham ham ya katima Juke for sorry ya kajitama May takhdidam Nyodan ma. May For Nubanta yema Watumalu yomba Nyakalam nama Fumama nadugu Sitane tapuma Jali sama lakhon Gini yala waluma yewtude ma fi allah borno da di chonchi ma do yo to garde mi yahata sa ya yahata linda ko woni woni nde hoore ma a feetu ɗa sikka waɗay e ko falɗa ɓaydeni ma mayi eallah mayma sama jamu de yo ay, eh, ku bonga yo nga ba sama papa de nga yobbu excuse ma ba pare xamoon nga bu baax ne bugul won loolu da nga yàqamti tu mu dee n'est-ce pas. du ma la mës a baal nga dee. Linda. Yanda si tin feetu k'a feetinkinto. Yatugu bonu fi yow la. C'est à cause de toi si Néné Maï. Si elle n'avait pas découvert que tu te prostituais pour la soigner, elle serait encore là avec moi. waa sanatu mu yok baba da ngeen am dom mais lu taxoo waxuma ko bi nga ñewé Dakar il y a dix ans mais xam nga baba loolu la bëggoon ndax xam nga papam dafa war bëggul won papam xamal ko dara bu ñu ñëw sax bëggul ñu ak dara mais baaba man duma papa baaba sama xarit benn bakkan la li ma mësul comprendre kañ mooy mu jékki-jékki xëy benn jour rek dem gisatuma ko fenn juste quelques jours après bi ma ko mujjee gis la gaañu Assane baaba expliqué na ma lu bëri lu jëm ci papam ak si sa papa yow mi boo gisee waxu la dara avant muy dem suisse dafa ragaloon nga feñal ko te dafa on yayam avant muy gañu ci yalla di lepp mënon na ñak buñ amone ay wajur yu bax Monsieur Diop duma ko bal bo ilaa yow mi tiin ndax moo sama jëkkër Mo tax ba baba def lu mu def samay dom ñak seen papa lenn rek la bëggoon ñaan Bu su Yalla défé ba nga def sa opération ba tané jam. nga jël xalé yi del le Dak te ba da bi muon daw bata yi mngu fi Temgi ci ka linda sa do Lindnda Lo bu gawa fofu fi dakar ba Bu fu woolu kenna ku mu donit bufu wolu kenna loolu daal laa amoon lu ma lay wax man nag maa ngi ñëw dem tane ak jàmm vraiment j'étais content de te revoir maa ngi dem. tu es la Linda. waaw waay sa papa sama xarit la woon nag bu ma jege sax. dégg naa li nga doon wax ak Néné yëpp Néné moo feebar man feebaruma te xam naa Linda du dellu ak ñun Guinée dama bëgg nga wax ma danger bi nga doon wax Néné comme ça ñu mën koo moytu. ma fille li solo mooy. ngeen dem Guinée bañ fee toog ndax fii baaxul si yéen. déedéet wax loolu yow tamit ah gili yàlla rek wax ma hmm, sama bopp bi sama yaay démb laa yëg ne que sama papa dafa xaru fi ku sama yaay ak Linda si àdduna bi. te man léegi mag laa wax ma lan mooy danger bi ñu mën ko moytu. tu sais ma fille Linda xaalis bi muy jox sa yaay bu ma faju ni mu ko amee baaxul dafa jaay boppam. te bu toogee fii du arrêté désormais nag walla soxla xaalis. je suis là. Linda tu, déjà jaay papa hein. donc Linda est prostituée Rire là Ça Linda Linda Vale, tani na fiala. Kuma ba na fiala. Bella, hei qua, hei qua, hei qua. Su con figlia Linda, e ngaccia mo doia. Con figlia Linda, e ngaccia mo doia. E ne ya e nan. Taulu, taulu ba ba. <laughs> Allô Allô, Sodanodef. Ça va et toi Sant bon dama la doon wax pour euh, appart bi euh, weer wi jaruma koy fay. dinaa ko fay incha allah le temps que may feneen fu ma dëkk. feneen foo dëkk. waaw. dama wut appart pour man ak suñu waa kër. mais Damel et nous man divorcé ou madé bon maa lay bàyyi ci kanam. Damel Damel ok est-ce que wër na. Je me sens pas très bien, Rek. Comment ça Mais c'est Ram m'tangoul, en plus là, nous l'a metti. Dara metti ou ma Maria. Ana pas avec mère bi. ñoom ñi ngi si biir tey génnuñu. Maria, doo ma jàppale ma ñibbi Dakar Maya man bu ma toogee fii dof de je vais devenir complètement folle et je ne rigole pas. waa yow soo de yow mii yow nit nga yow ñibbi Dakar c'est sa problème yow lijjanti wo la nga doon def ci mbedd bi xaaji guddi ak solin gi bon liñ la fekkee soo da lijjanti woo sa sëy bii nar a tas nga naa ma dama war a dem Dakar. mais Maria justement su ma ñibbiwulee Dakar naka laay juboowee ak Damel. waa léegi yow soo da man xam nga lan laa bëgg xam yow loo doon wut ci mbedd bi xaaji guddi. Maria tu exagères il n'était que 23 heures et puis nee naa la dama demoon naani benn verre ak samay xarit. naani verre ak say bonne bon nga sol Damel mais Maria Damel est complètement jaloux yow ya ko gëna xam. ay Soda man yow waxtaan nga wax ma dëgg nga rassurer Soda man dëgg sarax ma rek man wax ma rek ma xam. Maria te rassurer de quoi yow lan sa xel. yow da ngay tromper Damel. tromper Damel yaa ngi dégg li ngay wax su yëfu dof yi noo ko mënee wax xam nga lan la man dama soxla nga jàppale ma ak paa bi rek loolu rek laa la gis nga paa bi aw ma lu ma la si jàppale. waaw lijjanti la sa bopp sa problème. اي مايا مايا جابلما من دمل غيك لابق سيريا اي سو خنغو يو شك فوايا جا خسس مخل مي سو نكو خيني ركم نارا جنالا جابل تنكو ريف واو ملي هامو نمي ريف ngay toog fii ba mer bi wàcc après man dinaa ak leen kon baax na merci 错了。 Dis-moi, Dalanda, Aran li muy seet n'est-ce pas xam nga fi mu nekk moom baaru objet yu ñàkk fayda yooyu moo tax muy sonal ñëpp ci kër gi lii la soxla waa léegi ko ma ci biir dossier yi ba jox la ko. vite fait rek pour la nga ma koy laaj. moom la aroon soxla kot bi muy ubbee coffre-fort bi baaxatul te caabi boobu rek moo ko mën ubbi loolu kese moo tax Aram nekk ci kër gi. mais yow lu tax nga may wax loolu yëpp su ya, yaayor sih. dossier yi soo bëggee jàmm bëgg récupérer sa kër jox ko li mu soxla fidèle xaw ma yoon aron moo la yónni ci man xaw ma mais xaw ma de quoi tu parles bu ma def loolu li ma deful xaw ma yan document ngay wax man sama yoon nekkul ci aron dalanda yow yaa ma ñor En tout cas, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, à moi, tu manques confiance. Je vois. ça va Ça va. Madame dem tey lool mu la Mets woon. may ma tuuti s'il te plaît Fatoumata. ok. Votre série revient après la pub. Pour des moments de douceur, de plaisir et de convivialité, emportez-le avec vous, des Flécha, le meilleur du thé. Alib, le goût naturel du lait. Découvrez les super unifiants et clarifiants. Alpha Arbutin 3 plus papaye et Gluta Banana, un temps d'avance sur la beauté. Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie. wetti gis bokk ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew yaay chef resto soo ko mosee dootoo Saelia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 11 11. boo rombee sant yàlla boutique romb nga tissu yu gën sant yàlla boutique tissu yu baax fii la fekk baax. Fatoumata loo soxla woon sànq. dama bëggoon ku ngi leen daa gindee mais bien sûr mën nga dem jarul woon sax ngay ñëw tey man xam naa dinaa leen fekk foofu incha allah ci lu mu gën a gaawee. Fatoumata xam naa ni mere nga ma ndax mais xamal ni maa ngi koy rëccu bu baax a baax a baax vraiment su ma sañoon nag sama diggante ak yow mel comme lu mu meloon avant je te promets dinaa racheter wu ak lindaa promis. waa lan moo tax demoo léegi nii. fu mu nekk nii daal soxla na la de jarul sax ngay ménage tey. non bàyyi ma terminer fii si kaw comme que commencé naa ba pare. Hmm. ah waa d'accord man xam naa maa ngi dem sangu ji. ba démb yi ba léegi ñoo nekk nii ëbbali sax defuma ko waxuma laa nelaw non Gaye lii laa lay wax à chaque fois bàyyi li ngay def yow déjà sa yaram neexul nga bëgg ci boole ay ñàkk nelaw pour lan wax naa la lii jaru ko lii du benn problème day jàll nga ne lan di problème yow soo daanee nii ba mu demee Dakar ba léegi fen rek lay def yow nga bugg a taxaw ne ma du problème kon yow lan ngay woowee problème te soo da deful dara lépp papaam la. Euh, non bul tooñ. Karim man la def. gis nga Karim Sodé mii da ci sax gëmul yàlla mais nag comprendre naa tam tuuti na parce que Sodé miracle la man ñaata fos couche laa def yàlla dañuy doog a indil Sodé mais nag nii la mën a defee comprendre naa ko bu baax. Hmm. yow Nogay loolu mosoo ma ko wax. ma yi du lépp lañ mën wax on peut pas tout dire ci yàlla massa mais karim lu tax nga koy blâmer waa mais karim lu ñu njaagate mooy njaag ku jur soda du karim nga jur sa doom mu gënal la say bët gënal la sa lépp ci àddina karim demoon na bu daan yóbbu soda école da koy yëpp ci otoom tant que demul ba dugal ko biir classe du ànd ak gëm yàlla yi wàññeeku foog mu leen ko ne Soda ngi biir classe mu doog a wàññeekuwaat pour lan loolu. tey mu ngi nii gis nga li ko Soda indil gis nga problème bi ko Soda indil tey doom boo ko juree nag da nga koy yar. Hmm. wax nga dëgg de maa ngi soog a def rapprochement. dama yàgg a wax Karim du ma sax bàyyi xel doom boo ko bëggee da nga koy yar. waaye jur sooda mi mu gëtal la sëy ba tey mu ngi nii sooda dafa xëy rek tey bunt yi ubbeeku rek mu ne fi la yem gis nga résultat bi nag tey lu leen nag ah laa dee li mu def nii lépp ñàkk xam la waaw sax moom lu tax mu bàyyi ko mu dem Dakar mais dem Dakaram boobu du moom yaa ngi fàttaliku xaritam boobu xaritam boobu fi daal ñëw rek fàtt si fàtt si dëgg waaw Fatou mu ngoog moom dafay gëj sax lu ñuy njaaga nag te mooy njaag man nag li ma jaaxal mooy fàtti fan la jaar ba Karim bàyyi Soda mu dem man loolu bëggoon naa koo xam trop nag ay at ma topp ci di wax Karim faalewu ma ay at ma koy sorox di neexal lu ne ma dugg ci faalewu ma mais fàtti moo ñëw wax rek mu baka mu dem jaaxal na ma la noon moo kañ ah waaw walla Karim deh, def mbaa yaa ngi ci jàmm lu xew naka Soda mbaa mu ngi ci jàmm. moom sax moom fa indiwoon ndax vraiment Soda benn jikko ne Fatou nekkoon ci moom. Soda moom lu ko dal. dara dalu ko te vraiment. yaa tax ma bàyyi ko moom Dakar jàngi Dakar te moom ma am naa ci mbetteel lool nag. ndax lan. Fatou soo léegi jikko mu mooy fenkat hmm? day fen ay fenam di teg ay dilam ci li ma gën a metti mooy sax col gu bon gi muy di génn xaaju guddi. Soda. Soda nga wax de. Soda moom lu ko dal ak kañ la mel noonu. ana je dans tout ça. mu jëkkër ñoo yem et il paraît que ji moo koy je fen yooyu fen ba moo tax sax sëy boobu tas naa tas tas nga wax de yow ne de barki la sëy di tas kañ sama doom balaa yàqu ma jëkk que sama wet te nag lépp xawma luy dëgg ak lu nekkul dëgg mais vraiment nag am ci déception trop Karim man de fi wax sama xel ci yow mi la gën a waaw mbaa xam nga ne duma la bàyyi ngay yàq dundu bi li la nga Dakar mo tax tey lii nga bëgg def ma tiit mais yow est-ce que ma li wax

amul guddi gu may nelaw te duma xalaat li ma defoon la seule chose bi may rassurer mooy aveniru xale bi baax te lenn képp moo ko koy may mooy jàngam. yow man sa maa ko def ma mujj di wax ak yow te xaw ma sax lan lay wax ak yow man sax maa ngi des sama yow. Karim déglu ma bu baax. gis nga bo bayiwul xale bi dem jàngi lépp luma la waxon dina ko def xamna bu bax fi yaayam dëkk damay delu ba ca mom waxu lépp luma xam waw moma gënal fuf kilba bi bi bima nekké c'est bon pare nga. Mhm. désolé de maa ngi lay ranger ay bagages. Hmm, t'inquiète c'était vite fait. Mhm. Euh, attends. Mhm. bi may ranger ce bagage yi damaa gis photo bi. da nga oui si on peut le dire comme ça Ni en fait beaucoup nañ ci lii gën a tax may mener samay investigation hmm. wër naa fu entre Dakar ak Conakry mais rien lan moo tax ka ma koy là? Hmm, je connais la petite.

ça aussi kon ñii yow xam nga len ñoom ñep ak li mu leen wër yëpp. Mhm. dafay liggéey ak madame Taylor sax Lool mo tax nga koy seet bëgg mu infiltrer réseau bi. mais non rien à voir mais qu'il faut que ma gis ko coûte ko coûte parce que je pense que ni mën nañu jappalé pour ñu atteindre suñu objectif parce que ça a un rapport avec son père et le cercle. waaw. Sodome pap balen ma ak Hamna ni man malen toy. Te, te ma won len fen yéen yar ngeen ma yar bu baax man rek ma bon puis papa pour dire la vérité la manière dont tu m'as trouvé la dernière fois c'est pas la première fois des fois damay dem ànd ak samay xarit pour jëli un verre Damel bëggul woon sax il n'était pas d'accord waaye man maa dëgër bopp. yow yow amoo gàcce yow yaa tu m'as déçu Soda man Karim Fall li ma yar ak diine sama doomu jigéen man di génn ci biti guddee àll bàyyi jëkkëram ginnaaw bu nopp di so ay solu caga yow est-ce que loolu yoon la ah hey papa c'est pas normal waaye man li ngeen ma doon tëj bi ma nekkoon xale rek moo ma métti moo tax ma doon def lii waaye yéen yar ngeen ma yar bu baax c'est moi qui suis une mauvaise personne. lan moo xew fii ñu bëgguñu ma bàyyi ma gis sama yaay kaa bëgg gis expliquer ko benn affaire bientôt en Guinée dans quelques heures. Yo, donne yo. السلام عليكم وعليكم السلام ما تلوي ده فيه on sait qui est votre grand-père. Hmm? Panna, on te yata? Mais allez, Johnny. Andi, e y'a hé wani? Eh, mais n'andi kai. Andi, y'a e boutonde. Andi, tardi. Ah, mais e allez, Johnny, c'est la jambe. Fatoumata xamoo fa Linda nekk j'arrive pas à la joindre ok soo ko gisee nga wax ko mu woo ma Moussa gisoo Linda ok maa ngi lay yónnee léegi localisation wax ko mu fekk ma foofu c'est super important ça concerne son père gis nga li ma soxla Beau travail, mademoiselle Diallo bientôt il nga saxodome à sa frère fille Dakar. merci merci de prendre soin de Lila.

Écoutez, je ne vous ai pas appelé ici pour ça. Et normalement, vous devez être plus soudé que ça. Vous venez de perdre votre mère. Franchement. Je vous ai appelé pour vous parler de votre père. Ce n'est pas pour que C'était un brillant médecin. Donne la souvent. Dink, le bruit qui a D'ailleurs, il m'a parlé du problème qu'il a eu avec le professeur Diop. D'ailleurs, lolo motax exilé pour se refaire une autre vie. yow li nga nekk di wax ni ban rapport la am ak professeur Diop. Linda professeur Diop c'est ton grand-père. Marodi TV, votre visibilité garantie avec une communauté de 4 600 d'abonnés.